ndeysaan ñoom ñaar mët moo la féete càmmoñ liiru mu ngor moo la féete ndijoor moment bi ñaari mbër yi nekkee ci digg géew bi la Serigne Ndiaye doo di dugg si ci stade bi ndeysaan làmb ji mbokk yi semi de nocturne la ngeen noonu ñu noonu ci làmb ji ndeysaan liiru bu ngor moo féete ndijoor mët moo la féete càmmoñ liiru cokkaas na nepp sàmmal ma sa tànk yi Mourou Mbadou jëm sa tànk yi jël na tànk ba jël na tànk ba quatre appuis am na quatre appuis am na nepp daan na ko nepp daan na liiru nepp daan na nepp daan na liiru nepp daan na